حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di gëm di seede ni amul kenn ku ni jaamu ci dëgg jaamu ga di jariñ ñàkk jaamu ga di lor kudul yàlla subhaana moom dong mooy boroom moom dong moo sàkk moom dong moo moom amuñu kaneen kun war a jaamul kudul moom di ñaanal njéggal ako kawe sunu bi yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom dong moy ki nga xamni mom la yàlla jox diine ji mu tracé ci ñu war ci jaar wonen yoon wudul yoonu rasulullah sallallahu alaihi wasallam baaxul parce que inna diina inda allah l la yàlla wax benen budul bi yonente bi tracé baaxul ci ñun ñi ngi sant yàlla subhanahu wa taala di ñaanal ñeegal yonente bi sallallahu alaihi wasallam mom ay sahabaam ak ñi topp ci yoonam ñépp basaari taxaw yàlla ni ci yàlla boole mbokk yi ñi ngi sant yàlla subhanahu wa taala ci bis bii ñuy ibbi jumaa ji nga xam ni ñi ngi ko dippee jumaay tawxiid muy wéetal borom bi subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala dafa bind ba pare te yemalewul loolu nag ci xekk maam ak xereñam la yàlla nee na wa rabbuka yaxluqu maa yashaau wa yaxtaar yàlla mooy bind lu ko soob ba pare tànn ci gëneel ku ko neex yàlla moo sàkk weer yi jël weeru koor mu gën ci yàlla moo sàkk jaam yi jël yonent yi ñu gën ci yàlla moo sàkk bërëb yi jël màkka ak madina ñu gën ci noonu la yàlla sàkk bis yii jël bisu ajjuma mu gën ci bis la boo xam ni bis bu am solo la bis bu bari la tamit ay teggin ak i atte bokk na ci atte yooya mooy ñoo xam ni julli ajjuma lu war la ci jullit bu góor bu amum xel muskalaf dëkk ci dëkk bi nekkul nii bu la neexee nga dem bu la neexee nga toog déedéet farata la ci yow force dangaa war a dem soo ci demul te amoo ngànt da ngay am bàkkaar soo toogee sax nag ñetti ay bis yoo xam ne julli ji woo àjjuma te amoo benn ngànt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla day kasta sa xol day kasta sa xol mooy lan mooy xol bi li ko waroon a alimenté ba muy tooy ba muy ragal ba muy tiit dootu ci nekkati yal na ci yàlla musal mbokk yi bokk na ci tegginu bisu àjjuma mooy góor góorlu ba bala ngay ñëw nga sangu sangu farata bala ngay ñëw nga mën a laal gët ndax loolu tiyaaba ju rëy la ju ci nekk mu bokk ci ngëneelu bi su àjjuma mooy ku teel a ñëw ca waxtu ya njëkk ya yaay ëpp tuyaaba ku mujj a ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis bu wér nee na ki ñëw ci waxtu wu njëkk wi day am tuyaaba lu mel ne ku saraxe giléem ku ñëw ci ñaareelu waxtu yi mu mel ne ku saraxe nag ku ñëw ci ñetteelu waxtu yi mu mel ne ku saraxe gàtt ku ñëw ci ñeenteelu waxtu wi mu mel ne ku saraxe ginaar ku ñëw ci juróomeelu waxtu wi mu mel ne ku saraxab nen waaye bu imam bi duggee ba toog nee na malaaka yi toogoon ci bunt bi di bind dañuy lem seeni kaaka dañuy lem seeni fooy téey seeni xalima toog ñoom it di déglu kon tuyaaba ba ngay am yow rek mooy xëy na ñëw julli si jumaa ja waye tuyaabaja jiitu won ñëw ca jàkka jabu booba rëccina law mbokk yi bokk na ci tegginu jàkka tegginu juma mooy nit bu ñëwee bu ñëw di jéggati yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam nit ñëw na tàmbali di jéggati mu ne ko toogal fi nga yem faqat adayt ijlis faqat adayt juma mbokk yi su imam tàmbalee di xutba kenn amatul droit di wax bu sa moroom doon wax sax bu fa nekk naan ko noppil ñépp dañoo war a selawut di déglu bokk na ci tegginu jumaa nit ki boo duggsee ci biir jumaa ji moo xam fekk nga imam di xutba moo xam fekkoo imam di xutba na nga julli ñaari rakk ñaari rakk yooyu dañuy wax ni da ngay koy nuyoo jàkka ji waaye ñaari rakk yooyu julli la pour dugg ci jàkka ji mën a toog ñu tuddee tahiyatul masjid même su imam bi doon xutba li wér mooy boo ñëwee jullil ñaari rakkata gàttal ko wér na ci saxeexul buxaari wér na ci saxeexu muslim yonent bi taxaw ca min baram ba di xutba benn waaye dugg toog yonent bi dafa dagg xutba bi ni ko diw mu ne ko ah mu ne ko jugal qum fa salli rakaatayni wa tajawwaz fihima jugal julli ñaari rakkata nga gàttal ko kooku julli ñaari rakk bi yonent bi jullee ba sëlmal mu wax ak ñëpp nag ndax loolu mu doon wax kenn la ko doon sant léegi nag mu indiwaat beneen terme boo xam ne ñëpp la doon waxal mu ni ida daxala ahadukum al masjida wal imaamu yaxtub fal yu yusalli rakaatayni wal fii fihima kenn ci yéen ku manti doon bu duggee ci jàkk fekk imaam di xutba na julli ñaari raka te gàttal ko kon yi yëpp ay teggin la yoo xam ne yu jara bàyyi xel la yu jara xam la ci bisu àjjuma yàlla na yàlla defal dégg ak topp barakallahu الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله هذه الأحكام والآداب كلها لتمهد لنا نحن معاشر الخطباء والأئمة لنؤثر في خطبتنا على المصلين ولا توجد هذه الفرصة لغيرنا نحن معاشر الأئمة ñi ngi santaat yàlla subhanahu wa taala di ñaanalaat xéewal ak njëggal sunub yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi gis nga lii ñu fi wax yépp ci ay teggi nag ay atte yooyu yépp dafa bokk ci xekma yi tax lislaam tëral ko ngir waajal ñu ñun imaam yi ba suñ message mën a jàll imaam message bi mu am keneen amu ko bisu àjjuma boo xam ni yow doo convoqué kenn doo yónnee invitation kenn te kenn ku nekk force la ci moom mu ñëw force la ci moom mu ñëw bala nga koo xam bis bii weesu bis bii bis cérémonie la waaye bu weesoo kenn du woo keneen te bu jotee force nga ñëw nga ñëw ñu ni la boo ñëwee noppil bul wax li imaam di wax bu neex ak bu la naqaree yépp yow na nga noppi parce que boo waxee sa julli yàqu na xanaa nga bàyyi ba génn nga jàppatoo ko ci biti ñun ñu am lu rëy loolu nga xam ni tey keneen amu ko président de la république amu ko gouverneur a ngi nii toog sama wet amu ko yow imam bi yaa ko am ci jumaa ji boo ñëwee la ngay wax la neex nit rek la ko ndax yëpp kenn du wax kon war ngaa jàllale message boo xam ni dina àgg ci nit ñi kon nag buñ amee loolu ba pare te lu bëree bari ci suñuy message jàllul ñun imaam yi lu ci bëri ci ñu na mooy suñuy message dañuy toog dañuy toog jàkkaarlook ñoo xam ni suñuy làkk lañu dégg ñu leen di làkki arab yoo xam ne xamuñu ca dara moo tax nit day toog ba mu yàgg mu ibbi journal am wala ibbi portable am wala toog ba nu ba nuy waaj wax allah akbar mu doogay ñëw parce que la nga koy làkk ci arab xamu ca dara kon war na noo firi xutba yi ci làkk yi ñu dégg xutba message la du julli de yeesaa nga dégg ñenn ñu ne la moo remplacé ñaari ràkka yi déedéet ñaari ràkka yi jumaa ñaari ràkka la du ñeenti ràkk bu ko doon remplacer bu may xutba penku laay jublu kenn du julli di jublu sow bu ko doon remplacer bu may wax du ma eh, bu may julli kon du ma nekk di wax te léegi bu kenn bu ko bëggoon def dara mën naa dagg xutba bi wax ak moom doo koy àggale sama xutba kon message la bu nu war a àggale ngalawaay nan ko jox nit ñi ci làkk win ko dégg su fekkee ni danoo nekk foo xam ne ay français fa nekk nan leen wax français su fekkee foo xam ne ay anglais fa ne nañ leen wax anglais su fekkee foo xam ne ay wolof ay alpulaar nañ leen wax ca làkk ya ñu dégg loolu nag li ñu ciy dimbali mooy il faut que ñu tànn imaam nag gis nga fonction bi du fonction bu tuuti dañ cee war di former nit ñi sinon maa tabax sama juma may jiite maa mag ci koñ bi may jiite sama baay doon jiite jóge na fi may jiite ak fu sama yoo mën a yem loolu tax naa dañuy dem ba am ay imaam yoo xam ne toog bindu xutba sax duñ ko mën te loolu mooy li ñu dal ci Sénégal gii nga gis jumaa joo xam ne li ma mën a jàllale ci message nit ña di fa julli premier janvier ba 31 décembre benn xutba moom la nit di ko jàng ajjuma bu jot day dem ba gone yu ndaw yi dañ koy mokkal xoolal suñ problème yi ñuy am ci suñ société bi ñu war a wax ak askan wi xoola mbas mi fi nekk imaam yi dañ ci am rôle docteur yi xam nañ ko moo tax saa su ne ñu woo imaam yi ni ñu wax leen waaye su fekkee ni ñun dañ ca war a wax te fan ca war a waxee ñu waxi arab wala ñuy jàng loo xam ne ka ko ka ko bindoon xutba boobu ëpp na téeméer at fii ci senegal bari ne xutba yoo xam ni àjjuma bu jot moom lay jàng te ëpp na téeméer at ban ko bindeeg léegi message bi kañ lay jàll kon il faut ñu mën a am ay imaam yoo xam ne day am niveau ci mën a bind xutba semaine bu jot ci lii lañu war a wax indi aayeeg xadis yi nga xam ni dëppoo naag yooyu mu wàcce koog jamonoom xool leen fitna yi fi amoon jamono yii imaam yi waroon nañ cee xutba kon yooyu yépp ay message la yoo xam ni yàlla subhaanahu wa tàggatal nañu jaam ñi waaye nag balu ko mën a àggale ci ñoom il faut que nag ñu réviser waat suñu bopp nag fonction bi dafa laaj jël imaam ba mat imaam ci suñuy jumaa yu manti doon ci dëkk beeg ci réew mi nañuy firi xutba yi nit ñi dégg ko su ko defee njariñ li mën a àgg ci askan wi su ko defee société bi ci boppam dafay nekk société boo xam ni bu baax lay doon lu nu bëgg a lijjanti mën nañ koo lijjanti ci jumaa yi semaine bu jot ñu dajaleel la waa quartier bi nga wax ak ñoom semaine bu jot ñu dajaleel la waa quartier bi nga wax ak ñoom suñu démé ñaari wër ñetti wër te jarignu wunu moy yow war nga xolaat sa bop kon yàlla nu yàlla defal dégg yàlla nu yàlla xiir ci bop yàlla nu yàlla sam اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله